nuyu naa maire parcelle nuyu le grand maire Barthélémy nuyu la conférence des leaders nuyu ñëpp gis ngeen bi daa neexal li jënd Macky Sall seen kër ba mu des ci nguur gi. góor ba attendey daane la rakk jee waa Géejawaay daane min dengi dengi dengi dengi timmin wonas carrément bu yomb la le pouvoir ne se négocie pas dafa fekk ne nit ku naan non man duma tapet man jëree la tapet la Pape Malick Ndour seen ministre boobu Sénégal da dañ leen wax leen solution bu ndaw dama ne gis nga ñun niñ ko defee na ko ñëpp wallahi billahi wallahi wa taalaahi li ñuy wax gëmuñ ci dara ñun avant local yi ba léegi ñu ngi ay nit man réseaux sociaux rek lañ leen di gis waaye fii kenn ko taal waaw fii leen tuddee ba léegi Yewwi Askan Wi bi mu tuddee ba léegi Yewwi Askan ba tey man de Guédiawaye man réseaux sociaux yi rek laay dégg te yaa leen di seetaan de ñu naan non ñun xoolal Guédiawaye fii xoolal ñun gis nga suñu fii kenn du ko taal ku ko nar a taal man may taal rek taal naa leen local taal leen député gars yi jékkali leen président. ci dara gis nga ku nar a def dara doo wax dara te doo def dara man daal géejuwaay fee leen rek laa doon su gaa yi guddi gi ne ma waa mais mbëri gaa yi nu muy demee suba ma noo non garaawul bàyyi leen bañ génn rek buñ génnee ma dem ba jublu benn mairie rek dugg ci biir mairie door leen ba ñuy bëgg a dee ñu porté ma plainte ma xëy jour ba ca topp waa la ma ne nañ leen dox rek dañuy dox di dox di dox. laa ko ci lii laa ko bi amul benn secret li Barthélémy Dias wax loolu moom mooy dëkk buñ fi nekk di ay marche lii gis ngeen le 16 ñun moom incha allah rabi dañuy dem barki ma Yes, sir.